mbokk yi ñu jàll ci combat boobu di dox ci diggante Alias Baldé ak wulli wulli waat mbokk yi ndey saan borom ñam ñamaat ndeysaan arbitre sufle na génn seen diggante ñoom ñaar wulli wulli waat ak Alias Baldé ñoom ñaar ña ngay lewaatoo demee wet ndeysaan aliya attention wulli yooru na wulle ngay dóor wule ngay door plaqué ne alliance bañ la ilaha illallah plaqué waat ne alliance bañ mboot la ilaha illallah eh, lan mooy xew oho eh eh kan moo daan ñoom ñaar kan moo daan ñoom ñaar kan moo daan wulli daan na alliance balde wulli wulli waat daan na ko cay wulli wullee ngi noonu ndeysaan mbokk yi ngi noonu wulli daan na alliance balde wulli daan na Alliance Baldé mbokk yi ndeysaan oho cay wulli cay wulli waat ndeysaan ah ah ah VAR arbitre joxe verdict ba pare dem VAR aca mbokk yi kon ñu xaar arbitre ba xam bu jógee ca VAR ba lan lay andi ndeysaan mbokk yi ñu xaar arbitre bi ñu xaar arbitre bi alaaji bëgg fàllu maa ngi lay ziar lépp jàmm ziar naa la bëgg fàllu lépp jàmm waaw waaw bëggee naa la baam nga jàmm ndeysaan bëgg fàllu bu wal fajree gi noonu ndeysaan ñu xaar vaar bi ndeysaan arbitre baa nga noona ca vaar ba saan ñu xaar bu ñëwee lan lay andi bëre waat lay wax wala day joxe verdict ndeysaan sama xarit bi seex ñaa ngi noonu borom Thiès borom Diourbel ndeysaan arbitre baa nga ca vaar ba arbitre baa nga ca vaar ba ma ngay consulter ak ay siisam ndeysaan lu arbitre wax waaw jox nañ wulli victoire wulli daan na ko waaw waaw wullee ngi noonu lan la wulli di wax wullee ngi noonu mbokk yi ndeysaan